nous laa avec la diva Fatou Laobé ah sunu yaay di ñu bëggal macha allah nga mën a woy lool ndax yaakaar naa senegal néew la ñu fi bëggalul di la ñaanal ndax sunu yaay nga lan mooy sa relation ak monsieur le maire Bamba Fall. Bamba Fall nag euh, sama càmmiñ la sama xarit la nit ku baax la man fi may dem bariwul jëmmam moo tax ma jóge yëmbal tey ñu ba nit ku baax ku sincère ku mën a jàpp nitam ku mën nitam ku mën lu baax bëgg nag euh, waa waa waa waa waa waa Médina Bamba Fall la ci bépp maire ku xool ci moom doo kon yal na ko yàlla defal jàmm. maman Sénégal dama nañ la ah na dama nañ la fu mu fu waaw maa ngi ci yoon bi maa ngi war a génn album allah waaw. Euh, du yàgg dara bu sooba yàlla loolu dañ koy def parce que munaas day jigéenu Bamba Fall jël Bamba Fall def ko ci xolom ku laal Bamba Fall ay bëtam day dooy waaye nag loolu la ñu xam ci moom macha allah sekk nit ku baax la amul morom waaye loolu amul benn problème nañ ko def incha allah